ñu bàyyi la rek nga présenté ñu association bi euh, kañ nañ ko créer xam naa ni nag xale yi ne ci mbedd mi moo ko tax a jóg mais nga gën a yaatal rek. voilà merci euh, association bi ñu ngi ko comme créé en 1994 euh, ay euh, jeunes yu nekk ci mouvement d'action euh, catholique ak euh, ay pionniers ñoo ko créé doon. jege ñi nga xale yi ñu ñu au début sax nekkuloon xale yi pàkkamaan euh, yi bon. Mm. terme c'est le terme bi ñuy utiliser d'habitude ñoom lañu doon jéem a xool naka la ñuy def ak ñoom ba mën leen a mën a ba mën leen a boolewaat ci ci askan bi ci noonu ñu doon am ay activités ak ñoom di leen dem di nemmeeku ci seen seen bërëb yi ñuy tàmm di dajoo mm-hmm. dajale ñu dem ba ba foofu di gis foofu ay xale. bi daan nekk ci ci ci ci ñoom ñu ne xale yooyu noonu ñoom ñoo gën a vulnérable sa ka mag ñi mm-hmm. lan lañ war a def ngir xale yooyu noonu ak xale yi nga xam ne ñu ngi leen naan gis ñuy traîner ci mbedd bi ak yooyu association bi ne ah bon nañ jéem a xool nu ñu leen mën a jàppale ci noonu ñu constitué en association mm-hmm. commencé am ay activités yu ñu tuddee action rue di dem ci xale yi di fekk xale yi ci ci seen ci bërëb yi nga xam ne fa la ñuy dajaloo lu ñu tuddee ñun euh, des points de chute euh, di di commencer am ak ñoom ay activités après commencer di retirer xale yi ndànk-ndànk ci mbedd bi. di leen jëlee ci mbedd bi mm-hmm. léegi nag euh, jëlee xale ci mbedd dafa laaj nga tout une procédure au début maîtrise. kii bi c'était juste euh, programme c'était juste la récupération et la réinsertion dañuy jëlee xale bi ci mbedd bi jéem a ut fan la ay waajuram nekk jëm ko delloo loolu noonu la association bi commencé mais ñu dem ba ci biir gis ni euh, am na yeneen problème yi ci nekk ndax xale bi dañ ko daan delloo bu ko boo ko delloo ba noppi quelque temps après boo demaatee ci mbedd bi da nga fay fekkaat xale bi day delluwaat ca delluwaat ci mbedd ba. ñu ne ah il faut peut-être ñu xalaat ci solution boo xam ne day day day yàgg de mais pour loolu il fallait que ñu xam lan moo waral xale bi di génn kër gi. loolu dafay laaj ñu am fu ñuy denc xale bi la temps que ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu. xam voilà ñu xam exactement lan mooy problème bi. et que ñu mën a traiter problème bi balaa ñu mën a delloo xale bi. ci utum solution boobu noonu waa Prométhée humanitaire muy benn ONG ñëw fekk si ñu nañu comme euh, xale yi fas ngeen ne ngi leen téye lu diir gu gën a yàgg il faut ñu am fu ñu leen def ndax avant benn góor gu nekk cité millionnaire ma koy nuyu au passage monsieur Cissé moo ñu abaloon garage am donc bu ñu récupéré xale dañ koy teg ci garage boobu noonu ñaari fan ñett histoire ñu xam fan la dëkk ñu mun koo delloo. Mm-hmm, mm-hmm. mais bi ñu demee ba changé approche ne léegi dañoo bëgg denc ci xale yi lu gën a yàgg. Mm-hmm. mun a pour régler problème bi ko daan tax génn këram. Prométhée inter humanitaire mooy ONG bi ma la wax jënd benn kër au niveau de HLM Padoua euh, jagleel ko. waa SPER mooy association solidarité pour les enfants de la rue ne la léegi da jël jël leen kër gi mu nekk seen centre d'accueil noonu comme ça ngeen di téye xale yi fii euh, mën a régler seen problème ba noppi laata ñu leen mën a delloo seen seen seeni i mm-hmm. loolu moo nekk moo nekk programme euh, récupération ak réinsertion bi. Mm-hmm. bi mooy benn volet bi. association dem ba ci biir bon ñu ne xale yi récupère leen teg leen ci ci ci centre bi baax na mais bu ñu leen récupéré teg leen centre bi lan la ñuy def ak ñoom. Mm-hmm. ne. placeu xale normalement école la wala daara. Mhm. ñu ne kon dañ leen dugal école ñu jéem leen a dugal ci école e, publique yi nekkoon yu nekk ci quartier bi mais xam nga xale boo xam ne e, yaa ngi koy jëlee ci mbedd bi mu ngi am 13 ans 14 ans wala 15 ans am ay retard de scolarité de parfois 5 6 ans. mu ñëw nga dugal ko ci classe su CI. ak ay mhm. xale yoo xam ne 6 ans lañ am. day am ay problème yoo xam ne da ciy ah, juddu déjà tàmm gi bien mën na influencer sax xale yi mu fekk très bien très bien au la laata influence bi sax euh, moom ci boppam xale bi mhm. day am complexe voilà day am complexe par rapport ak ñi mu bokkal classe boobu mu nekk benn problème beneen bi nekk le fait que moom moom ak xale yi moo leen sut moo leen ëpp généralement hmm. dañuy dañuy dañuy dañuy wëlbatiku di noot xale yooyu di voilà nangu seen ndékki fii di leen exiger booy ñëw na nga ne andi xaalis et cetera li ñu tuddee tuddee raquette. Mm. beneen problème troisième problème bi nekk enseignant bi nga xam ne moo nekk ci biir classe bi problème bi moom xamul xamul problème bi c'est-à-dire il n'est pas très imprégné xamul xale yi donc xamul nu muy gérer genre cas yooyu noonu après te ay renvoi ay dàkk ay convocation yu dul jeex parents yi aussi ñenn ñi dañuy dañuy gis seen bopp parce que bon la xale bi bu ñëwee chaque fois nañ ko dafa am benn ponkal bu nekk suñu classe chaque fois su ma génnee dafa mel nangu sama ndékki et cetera parents yi di plaindre ci la noonu association bi ne il faudrait que ñu jël en charge éducation xale yi. Mhm, mhm. ci la ñu créer le volet prévention. Euh, garage bi ñu joxoon ñu soppi ko def ko classe d'alphabétisation. ok commencé tàggat xale yi ñun suñu bopp. Hmm. bon comme ci biir kër la nag. Euh, dëkkandoo yi ñenn ñi mënuñoon dëkk xale ak xale yooyu noonu finalement ñu ñenn ñi commencé génn léegi bu ñu génnee ñoo ñu récupérer seen seen chambre def ko salle de classe noonu noonu ba finalement euh, école xale buuru la juddu ci. ah école bi ci la juddoo. voilà école bi ci noonu la juddoo parce que après xale yooyu xale yi ñu daan yor dafa dem ba euh, ñi dëkk ci ci quartier bi gis liggéey bi ñu daan def. ak euh, aussi résultat yi ñu daan def ci xale yi encadrement bi ñu ciy def ñoom ñu commencé andi seen i doom di leen boole di leen di leen di leen euh, dugal ci école bi école bi di màgg. Hmm. l'école bi di màgg ñu jégale ñu ñu ñu mujj daan euh, créer classe préscolaire hmm. préscolaire après ñu bu ñu récupérer benn chambre ñu def classe de CI CP CM1 ba egg CM2. kon école bi instant yi am na ba CM2. waaw préscolaire la ba seen 2 dinañ ci